jiyaa jëfatee jiyaa jëfatee sama gars yi Mister Shake la depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon sama gars yi maa ngi nii côte ouest voilà gars yi tey dama ñëw indi leen meetingu président Ousmane Sonko xaar ma wan leen image président Sonko dafa war a def benn meeting meeting gis nit ñaa ngi ne bëri fii di kër Massar nit ñaa ngi ni toog bëri lool yaakaaroon nañ ne meeting bi dañ koy tere mais Macky Sall terewu ko parce que jegewul dakaar sori na Dakar kon xelam xëy na dal na ci côté boobu léegi lañu bëgg wax mooy meeting bi lan la ci Sonko war a wax est-ce que Sonko dafa war a ñëw layam layami wala Sonko dafa war a ñëw dëggal boppam xool leen nit ñi ni ñu bëri rek macha allah. est-ce que dafa war a ñëw layam layam yi comme Macky Sall nii wii nii noo wala dafa war a ñëw mu ne man demuma procès te dama bëgg yéen xale yi su may dem buñ ma nee dañ may jël si ngeen ñëw ngeen bañ loolu bu leen xaar ba ñu jàpp ma parce que dama dégg ku mel ne Kayz foofu mu ne comme yëf dañ ko yóbbu chambre criminelle président Sonko buñ ko convoqué duñ ko sax convoqué dañuy xey ben jour rek fekk ko kërëm ne ko daal di yóbbu man loolu sax gars yi dañ koy wax rek waaye Macky Sall amul fit jàpp Sonko voilà nekk fii di def ay rassemblement di def ay concert de casserole di dajale xaalis 330 millions neex na waaye patriotes yu bëri dañ ne président Sonko warul dem ci euh, procès ba te booy xool booy xool gars yi sax wax nañ dëgg man mii sax dama ne woon bu njëkk ba mais Sonko bu demul procès Macky Sall mën na ko tere ne doo bokk ci élection yi loolu tamit loolu tamit gars yi booy xool loolu tamit euh, lu am maanaa la parce que xool nit ñi macha allah macha allah xam nga ne lii yëpp ku ko am waruloo tiit waruloo ragal lii ku ko am ñu génn ne dañ lay gunge procès procès du taxaw parce que dafa am lu wax le procès du tribunal mais aussi dafa am lu wax <coughs> la justice du peuple yang may deug peuple bi mo wara def mo wara wax li yoon te te te te nit yi xool leen ni ñu bëree allah ku len xol xam ñi Sonko lañu andal tay Sonko lañu andal suba te bu ñu génnee ne Sonko du dem wuyu ji tribunal Sonko du wuyu ji tribunal kon booy xool sax booy xool sax Sonko warul wax du ma du ma dem parce que boo waxee du ma dem daf koy yombalal Macky Sall parce que Macky Sall du ko jàpp Macky Sall du ko jàpp Macky Sall day wax juge bi condamné leen ko comme woo nañ ko mu bañ ci loolu rek dinañ ko tere du bokk ci élection te boobaa xeex du am parce que bu boobaa Macky day toog rek di xaar ba 2024 te fi mu nekk luy jot dafa jot pour Macky Sall

ñu yóbbu ma procès daan ma loolu la war a laaj bu mu wax gars yi gunge leen ma dafa la leen war a laaj est-ce que di seetaan ñu yóbbu ma procès ci procès boo xam ne dina dinañu ma daan ba xam lan la nit ñi di wax waaw comme ça nag ñoom bu ñu dee jëlee seen décision ne dañuy def procès Sonko bu génnee këram xale yi gugewaat ko ne du dem comme bële passé bu boobaa Macky Sall dina dellu ginnaaw sëriñ yi dinañu wax ak Macky Sall Sénégal nekkaat jàmm Macky Sall du fi ñemee wax troisième mandat waaye di ñàkk fayda di ñàkk fayda ñuy woo président Sonko tribunal aji Sarr toog maître El Hadji toog di xaawi suturaam yaa def nii xale bi yaa ko sëddee ginnaaw yaa ko ngeen baal ma yaa ko juutal yaa def lii sa man yu génn na lu tax bañ la waxee joxe sa man yu joxewoo ko nekk fa di jéem a xaawi sutura Ousmane Sonko ba paré nak li ci gëna a bon mooy Mamour Diallo du ko comme témoin hein? Ah, kèn du wo comme témoin du euh, euh, comme témoin té té am mais sax docteur bi Alfousseyni ko mais Alfousseyni Gueye gay limu wax certificat médical bi lérna xol le nit yi ce peuple sénégalais dañoo sonn ci peuple Sénégal ci boppam ñoo bëgg changement te lii du dara bu fekkee ne dañ ne dañuy yóbbu sonkoo tribunal man nag li may wax rek mooy leer Ousmane Sonko Afrique yëpp ñu ngi lay xool Ousmane Sonko adduna yëpp ñu lay xool Ousmane Sonko waa Casamance yëpp ñu lay xool nit nag population peuple du am yaakaar ci yow jël seen yaakaar yëpp teg la ko ngay ñëw di layam layami wala au dernier moment nga nekk da ngay déglu ay sëriñ man ba nga ko njëkkee def mer naa trop le 8 mars ba nga ko njëkkee def. live la def yor sama téléphone ba nga waxee dañuy gungé Macky Sall dama wax wax ju ñaaw la wax ngén baal ma wax ju ñaaw ba paré sanni sama téléphone parce que man xamoon na né Macky Sall du nit ko xamné ne boo dang koy bàyyi mu patrouille yépp di ma saga xam nga wa lolu passé na légui yow ya né Sonko ya ko wax amul dara lu la mëna téré tere bokk ci ay élection ya né pare nga pour joxé sa bakken président Sonko ya ko wax pare nga pour joxe sa bakken boo paree pour joxe sa bakken ñun ñi ñëpp tamit dañuy pare pour joxe suñu bakken yaa ko wax yaa ne du Macky Sall doo seetaan mu tere la ci bokk élection yaa ne Macky Sall du fi defee troisième mandat yaa ko wax kon nag du ñu la yaakaar dajale xaalis jox la trois cent trente millions wooteel la ay député def la maire yow nga ñëw ba ci ba fii di commencé di di di di yox yoxi comme ni nga yox yoxee ko woon le 17 juin Macky Sall wër la nga ne doo dem juma te da nga waroon dem juma en tant que jullit xam nga le 29 nga ne Macky Sall dina ma rey baa mu jàpp ma yaa ko wax le 29 ñëw sëriñ woowaat la nga tegaat lépp ci suuf bii paa li ñuy bañ mooy nga dem tribunal Macky Sall yóbbu la tribunal forcé la condamné la ba pare yow nga wëlbatiku xaar ba 2024 waa ji jot nga ne xale yi waa garaawul amul solo. ah bugguma nit ñi dee dugg na fii gis nga ku bugg akara da ngay ñeme kaani on ne peut pas faire d'omelette sans casser ni dee bu waree am day dee quatorze ñii dee gënuñu ñu ñii dee gënuñu ñu man nag bokkuma ci nit ñi nga xam ne dañuy nekk Amérique rek di wax waaw ndax man dem naa Sénégal ñu bari ñu naan monsieur Cheikh lu tax xeexuloo xeexuloo man li ma def ñu bëri ñemewuñ ko def ndax man man amerique laa bind man consulat amerique américain laa bind ak ambassade américain ak ministre de des affaires étrangères muy secrétaire d'État euh, Blinken ba muy ñëw Sénégal maa ne ko waruloo ñëw Sénégal ndax makki sàll mii ngay gis ah dafa bëgg xañ président Sonko euh, euh, nu mu tëddati élection yi Blinken man maa bind lettre ambassade lettre bi liir naa ko ci samay live ñaari lettre wax ko ne Macky Sall warul bokk dafay préparer def troisième mandat te li ma wax ne am na ma bindaat ko ne ko manta manka bu ngi nii ñu rey ko Sonko nag dañ ko bëgg a rey dañ kaa bëgg a faagaagal loolu yëpp wax naa ko ko bind naa ko est may dégg. terewul ma takk sama fit jël sama bii avion dem Sénégal toog fa un mois continuer samay live man nag li may wax mooy Macky Sall bu delloo ginnaaw dañ koy bàyyi mu dem ci jàmm ak salaam ñoom ñëpp mën nañ leen baal réconciliation national waaye man du ma yox yoxi man Sénégal jaral na ma ma dee jaral na ma ma dem ñu tëj ma te ragaluma dem naa Sénégal liveur yu bëri fu mu nekk ñemewuñu dem Sénégal bu leen wax nag na man defuma du mu fi nekk nag di saaga waaye li ma def moo raw saaga parce que man damaa boolee Macky sàll ak ak américains yi te américains yi loo leen bind dañ koy liir boo demee sax tontu nañ tontu nañ ma maa gisul sama tontu parce que temps yi aw ma temps xool samay voilà président Sonko daal bu mu tas suñu yaakaar bu mu tas suñu yaakaar mu tas suñu yaakaar te yaakaaruñu ne dinañ tas dina tas suñu yaakaar bàyyi Macky Sall toog fii ba 2035 lolou bu ko defé vraiment dina gàddu suñu àq mais man gëm naa ni Sonko bu ko nit ñi continuer di jundju du du du ko def jërëjëf Cheikh bare ndjay vive le président Sonko vive yow askan bi vive le Sénégal gars yi like len partager len ba beneen ñu defal len vidéo ci live bi merci.